yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi wallaahi taala wa barakaatu noo ngi nuyu mbooloom yépp di jiital sëriñ Afe ci nuyoo bi euh, di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di jéggulu itam bu baax a baax ngir yéex gi ma yéex a ñëw ngir am feneen fu ma nekkoon ci beneen liggéey waaye lépp ci liggéeyu dëkk bi la te mairie ba kon xanaa nuy sant sunu borom tabaraka wa taala ci may gum ni mooy nu fekke waat ko ren ca mayoon nu fekke ko ay at mayaat nu fekk ko ren kon noo ngi koy sant bu baax a baax ndax ci coobaram rek la ko def ndax am na ñu ko fekke woon xëy na ca fekke waatuñ ko ak sama bokki liggéeykat yépp ndax lii moom ñu ko seq du ay commerce rek ñëpp ko seq képp koo xam ne ni bëgg lu baax ca yëg ko ca man dara yaa ngi ko ci doon def euh, xanaa ñuy fas yéene rek comme ni ma ko waxee woon sànq am na ku ma ci doon waxal mu jàpp ne xëy na ren mbooloo mi dadul bari ndax li xew mu jàpp ne lañ daan joxe kenn ku ne da ko war a mën a wàññi waaye ma gis ne nun liñ daan def sunu borom tabaaraka wa taala bi moo taxoon ñu di ko def ak Serigne Touba mi nga xam ne ku ko liggéeyal boo ko lebalee ker mu fay la guddi kon maa ngi ñaax sama bopp di ñaax sama bokki commerçant yi ak liggéeykat yi lépp lu ci waay man nga def ko la nga joxe woon boo ko mënee joxewaat nga joxe ko boo manee lu ko ëpp nga def ko kon defe naa ne euh, liggéey bi moom loolu rek soññ bi itam loolu rek la jàpp naa ne itam. Euh, liggéey la bu am solo ndax comme ni ko bàyyi Diop waxe léegi weeru koor moom di ci joxe aw ñam di ci joxe nit muy dogu lu am solo la kon di ñaan rek sunu borom tabaaraka taala nangul nu ko Sëriñ Tuubaa mi ñuy liggéeyal nangul nu ko ci rafet naa ci njort ndax noogi liggéey ci jumaa ji di jumaa Sëriñ Tuubaa kon Sëriñ Tuubaa mi ngi nuy dégg kon yàlla nañu ko nangul xanaa di ci dolli rek di ñaan sunu borom tabaaraka wa mbas mi xew muy balaa bii yàlla na ko fi yàlla jëlee jëlee ko ci Touba gi ba mu jeex fi takk jëlee ko senegal waaye jëlee ko ci àdduna bi yëpp ndax boo ko jëlee woon Sénégal gépp tam des ci àdduna bi kat mën naa lawaat ba ñëw fi ndax loo xam ne moom ngelaw la andi dem ndax ba muy tàmbali siin kat defoon nañu du ak si fii kon yàlla na ko fi yàlla jëlee ci barke Borom Touba barke Seexul Xadim defe naa ne wax ji moom mën naa gàtt ndax ab soñe rek la woon te ñu ñuy soññe xam naa ne xam nañ ne waxtu wa jot na. kon yaakaar naa ne danañ yomb danañ yomb kon loolu rek moo nekkoon euh, waxtaan wi di ñaan suñu borom may nu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim waaye ñu àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin yal ko yàlla def ci barke borom Tuubaa salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu tur ak seen sant di ñaan suñ Muntaxa yàlla yàggal ko fi te wéral ko di ñaan sunu mbooloo mi yàlla sàmmal nu ko eh, doxin wi xol sedd na ci bu baax a baax képp ku dégg lii sëñ Abdoulaye doon leeral léegi nii sam xel dina gën a dal sa xol gën a sedd ñu ngi sant yàlla bu baax nag niñ ko daan waxee eh, at mu buñ toogee fii dañuy ñaan fekkee ko déwén yàlla may nanu may na nu fekkewaat ko ñu ngi ko ci sant bu baax di ci ko ñaanaat nu teewaat ko ay déwén yu bare bare bari te at mu jot ñu gën koo man di soññi comme ni ko ñëpp waxee rek moom soññe rek la ngi soññ sunu mbokki opérateur économique yëpp ñu nekk Touba ak ña nekk Ndakaaru ak ñu nekk ci bitim réew sax ñu xam ne liggéey bi euh, donte am na xew-xew bu xew ren lu tee ginnaaw sëñ bi joxe na ndigal nan ko daan defe rek lan ko fas yéen defe kon ku nekk nanga nga waaj te taxaw ci na nga ci daa taxawee ku mën def lu ko ëpp nga def ko ku mën itam fa nga daan yem nga fexe ba ba egg fa ndax nuru na ne gàllankoor am na waaye dafa mel ne sax taw feex mën na ca gën a am ndax ñi ko daan wut si eh, ñi ngi fi jógewuñ fi mbooloo mi fi daa ñëw ñi ngi fi te bu yaatoo ba mën a egg ñoom itam incha allah dana danañ fexe ba foofu waaye waay nekk te soxla woo ko mu àgg ci yow. defe naa sëñ Abdoulaat eh, junj na ko léegi ci bi waxtaan wi nga xam ne ndénkaan yi nga xam ne moom la sëñ moom leen sëñ bi joxoon kon ñu ngi soññ ñëpp di ñaan nu gën cee góorlu kenn lu ci waay mën na ko def. Euh, dinaa koy faral di wax ca sos bañ bañ koy sos te sëñ Kàbb doon ko wax léegi ne un million teewoon nañu am na kili kilifa gu fa teewoon ne lu rawoon ci liggéey bi jumaa ji mën na koo dabu ci ci ci lii ndax lee tabax ko la woon lii dundal ko la kon loolu nañ ko bàyyi xel nun ñëpp te gën a góorgóorlu waat bu baax a baax a baax di soññ itam sunu mbokki ambulancier yi ni nga xam ne moom la ko moom moom li les blaat leeral fii léegi dañ leen di sant sax ci li jiitu woon ba noppi door leen a soññi ñu taxaw taxawaay bañ doon taxaw ñu ñu gën koo def nañ taxaw woon daaw ñu taxawee ko ren buñ ko mënee yokk ñu yokk buñ ko mën a yokki nañ fexe ba ba mat sëkk ca loola kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp euh, di ñaan nag lii nga xam ne moo xew ci àddina bi ba te sonal ñëpp yàlla jële ko fi yàlla rek moo ko fi mën a jële ñu ngi koy ñaan mu jële ko fi ci barkeb sëñ Tuuba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu alhamdulilahi rabbil alamin allahuma salli ala Tuuba alhamdulilah alhamdulilah bu ñu ko jëkkee nag moy bu ngeen xoolee àdduna bi ni mu yaatoo ak ni mu rëyee ak li fi nekk ci ay jullit te fépp fu waay nekk di jullit ci àdduna bi loo gàtt gàtt lamañ ak loo gàtt gàtt nopp di nga bàyyi xel ci Touba ak rawatina mbokki taalibe yi nekk ci àdduna bi yëpp kon ñun ñi jëm yi toog fii ci waxtu wii toog ci barab bu sell bii nañ wax alhamdulilahi rabbil alamin te xam ne sam borom rek moo nu ko jagaleel lii moom tawfeex rek la ndax ay million yi millions yi nit sans tànn fi jëm yi teewal leen fii ci liggéeyu sëriñ Touba yi loolu ku mu jërul wax alhamdulilahi rabil alamin xamul kañ nga koy waxati kon sant nañ bu baax a baax ci jataay bi ndax du ñëpp ci mën a yëg si am nañu ko bëgg sax te yàlla deful ñu mën koo teewee waaye kon nag ñun yàlla bëgg nañ ko te yàlla def ne teewee nañ ko war nañoo wax alhamdulilahi rabil alamin ndax sëñ bi boole nañ ci liggéey bi kon ak cant la ci ñun a ah, fii Cheikh Baara daaneele nag daanaka fi laay gën a jëmale wax ji mooy regroupement des boulangeries de Touba ndax ci la ñuy yëngu ñu ngi doon wax ni lañ defan daaw nañ ko fàtte te yokk seen loxo bu baax a baax a baax a baax a baax a baax ndax liggéey bi kat ñoom ñoo ko gis waaye ñun gisuñu ko dafa mel ni commencé gu dañuy door a commencé li ñu defan daaw nan fas yéene def lu ko ñaar. bu ci kenn tayel nañ yokk jëf ji bu baax a baax a baax a baax ah li ñuy waaj wax nii nag day xaw a nuroo question maanaam ñi nga xam ni ñoo fi nekk ngoon gu nekk ah, mbooloo mi daal di fekk ñuy organiser ndogu yi ah, dama xalaat ni ci sama xalaat bu ñu demee ba doxal première semaine bu njëkk bi dinañ xool ni liggéey bi war a doxee dëgg dëgg ndax fi mu toll xamaguñu réellement nan la nan lay tëddee. waaye bu ñu demee ba xool semaine bu njëkk bi ñu xool ni liggéey bi doxee ah xëy na mbooloo mi teew bi ñu faran daan teew ak ni ko mati matiw ñu gisee ci seen biir ñu xool nan la ñuy doxalee bu laajee yëf lu fi ñëw bu dee ñam la wala leneen la te amuñu ñu koy jëfandikoo jar nañu bañ koo def ay ñam te def ko beneen nature wala leneen seet foo xam ne fii yaatu na wala mënees na ko faa def ñu def ko fa ndax liñ ci jublu lépp mooy teral doomu aadama yi rek. loolu dong nga tax ñu daje fii di def aw yiw di def ay cotisation bu laajee mu mën a génn jumaa ji ndax ñu ko daan joxatoo ñëwuñu ñu seet nu mu génn jumaa ji te ñu buñ ko mënee def beneen façon boo xam ne bii kenn ku ne di nga ca gis sa bopp plus particulièrement nag ñi nga xam ni ñoo nekk ca confin dëkk ba maanaam ñi nga xam ne ñoo gën a cet ñoo gën a sori bu fa mënee yegg ñu yegg fa bu dee ay moyen logistiques moo leen moo ko fa yóbbu ñu seet nuñ ko fa yóbboo bu ko fekkee ku am moyen logistique boo xam mën nga koo joxe ñu joxe ko mu yegg fa loolu nag ay xalaat bu ma indi la rek bu may waxee nii rek xamu noonu lay mu déet waaye loolu nañ ci bàyyi xel ndax ragal naa ni mbooloo mi fi daan ñëw ragal nañ mën naa am du fi ñëw ndax euh, jamono bi li fi xew ah mbas mi nag moom sëñ Moustapha Gaje wax na ko Cheikh Baara wax na ko ah defe naan sëriñ bi moon ci ëpp kàddu ñu ngi ñaan ci mbaaxam na ñaan lii mu génn ci àdduna bi yëpp ba kenn bañati koo dégg fenn ba kenn ku nekk delluwaat ci say activité ndax gàllankoor la ci àdduna bi waaye nag sam borom tabaaraka wa mooy wane boppam ndax bu demee ci état ba nga xam ne dañ ne 52 état la foo ëpp doole ci àdduna bi ñu ne mooy premier ci fi mbas ma ñi ko ñi ko gën a yëg ñu gën koo dal loolu sam mooy wane boppam waaw kon nañ bàyyi xel bu baax a baax a baax ci loolu kon nag euh, sëñ Mor ak Cheikh Baara bu ngeen jógee. kenn ku ci ne ci euh, groupe whatsapp bi na nga gën a soññi boulangerie yi yëg leen ni lan daan def daay bàyyiwuñ ko ren jii lañ ko gën a def na oto bi gën a taxawu ñu gën a jublu ci liggéey bu baax a baax a baax a baax ñoo ngi sant mbooloo mi di leen gërëm di leen ñaanal ndax ni ko sëñ bi waxee sànqkat am na ñoo xam ne daaw ñu ngi fonte ren fekki wuñu ko defuñu sans borom lu tax mu yóbbu leen defuñu lu tax mu bàyyi ñu fi ci coobareem rek la ko defee te xamuñu tey la xamuñu ëllëg la te jar nay waajal kon ñun ñu fi toog ak ñi fi toogul ak ñëpp yàlla nañ ko fekkewaat ay at yu baree bare baree bare bari te mu fekk ñu jàmm ak salaam ak wér te lépp luñ fi liggéeyal Serigne Touba yàlla na ko nangul ci barke sëñ Muntaxa ci barke alquranul karim ci barke Touba Njaareem ci barke Makka ak Madina allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim waaw xanaa fàttaliwaat tuuti rek loo xam ne sax waxoon nañ ko ci tàmbali bi waaye ci biir intervention yi dañoo te seetlu ne daa mel ne am na ñoo xam ne fekkee wuñ ko woon. mooy sëriñ bi bi mu joxe ndigal li ci gaaw bi weesu dafa wax ne liggéey bi nañ ko taawu téye ko bañ koo teg ndax bépp liggéey boo xam ne dañ ko yëkkati ngir sëriñ Tuubaa war a koo teg dañ ko war a taawu te loo teg ci suuf yëkkati ga mën naa indiwaat jafe-jafe mu ne kon nañ ko wóyaree nañ ko daan defee lu ci dul dajale mbooloo mu wax ne bu dee lu jëm ci ndogu yi nañu waajal ñi nga xam ne ñooy nekk ci biir jumaa ji muy waa jumaa ji ñi nga xam ne ñoo fiy doge la ca des gannaaw ndimbala ko taxoon a jog te ñi fi daan ñëw ñu ko aajowoo lañ am na ci ñooñu xam am nañ ci ñooñu xamut bu ñëwee la la la ca des lépp nañ ko def ay ndimbal te ndimbal li nag nañu ko tàmbalee ci waa jumaa ji ñoom ñëpp foofu waaye nekk ba fu mu mën a yem nañ ko tàmbalee ci waa ji ba fu mu mën a yem fu mu mën a yem nag mooy foo xam ne rek fa doole ji yem moom bu mënoon a dem ba daj dëkk bépp itam alhamdulilahi rabbil alamin su ko mënta daj itam fu mu mën a yem ñoo xam ne fii la mën a yem waaye loolu mooy ndigalu sëriñ bi kon sëriñ bi dafa wax ne nañu waajal ndogalu yam ci ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñi fi nekk itam nañ fi nekkee nañ fi nekk woon di taxawal taxawu julli yi taxawu naafila gi julli ajjuma yi njàngum alxuraan mi yëpp loo xam ne liggéey bi nga xam ne ñu ngi daan def ci jumaa ji lépp yëpp ngi woy liggéey yooyu nag ñi koy def li ñuy waajal na jëm ci ci ñoom ñi ci des lu ñu am nañ ko tàmbalee ci ñi fi nekk te nekk ci loolu ba ñi nga xam ne dañ fay nekkoon te léegi xëy na sax même ñi nga toog seen kër waaye waaju jumaa ji lañu ñu teg leen ca su noppee bu tàmbalee génn ba fu mu mën a àgg mu àgg fa loola mooy ndigalu sëriñ bi nga xam ne noonu noonu la joxe woon. li nga wax itam incha noonu lañ daan doxee dañ daan def fukki fan yu nekk danañ def évaluation euh, am na ñu ko daan teewe si sëñ Moussa daana ko teewe ci seenu tur sëñ Baara daana ko teewe ci seen tur ñu évaluer li jàll. xool ko luñ ci war a yokk luñ ci war a wàññi luñ ci war a defaraat ñu defaraat ko loolu itam incha allah ni nga ko waxee danañ ko ni defee bu soobee yàlla loolu lan mooy li nga xam ne bëggoon nañ ko cee leeral kon dañuy jox Serigne Moussa Diakhaté bu continuer liggéey bi mu jàllale ko ci mbooloo mi fi toog yëpp di balaax ñëpp nag ci kàddu gi ndax mënoon na ñàkk nga xam ne ñoo xam ne bu ñu xasee jiitu dañuy yóbbaale ñëpp rek li commencé ci sëñ Moustapha Gadiaga ba ci ki mujj a wax waaye ñun dañuy leeral tuuti rek Eh, ñi ngi sant suñ boroom ci bañ ko sosee ba tey ñu di ko fekkee te yaakaar naa ña ko sosoon ñëpp ba léegi ñu ngi fi ñu ñaan yàlla rek ñu gën fee yàgg lool ndax bis bu njëkk boobee ñuy wax bañ koy sos defe naa baykat bu mi lay lay kaf ceer yaag satala yaag yooya defe naa la ca ëpp yaa ko jaayante woon mu mu metti woon lool kon liggéeyu sëriñ bi niñ ko jàppe woon yàlla nañ ko continuer noonu beneen leeral bi ma ciy teg nag nga xam ne mooy cantuk waa Muxaddamatul ma gi nga xam ne ñun ñoo leen ko yoreel ndax man kat ñi ma wax loo damay bañ bu ma juumee ñu ñu ñu wax ma ni ma da ngaa waroon a wax nangam ma Muxaddamatul ma liggéey bi bu yëgsee fii gannaaw yàlla ñoom la amul kenn ci ñun koo xam ne la muy joxe mën naa couleur li nga xam ne moom lañ fiy def ñoom ñu bàyyi seen kër bàyyi seen itte bàyyi seen njaboot jaayanteeg sëriñ Touba ba taaral ko ba liggéey bi mel nii kenn ku nekk xam na ni bu doon yow nga xam ne doo jàmbaar. kon ñi ngi jël cant gi di ko jaarale ci Serigne Afé mi nga xam ne moo ko jiitee mu jàll ci mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi ci Muxaddamatul Xidma ñi ma dégg ak ñi ma déggul di wax ne mbooloo mi ñu àndal ñun ñi ngi leen di sant di leen ñaanal di gën a tënku ci seen ginnaaw di doyloo seen i xalaat di ñaan yàlla ànd ak yéen ba faw bi ci topp muy secteur boulangerie yi nga xam ne suñu am di moo ci bopp ba ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndax lii wane nañ ci pas-pas boo xam ne dalal na xel ci ni secteur biñ bokk ñun li ngeen ñuy woo ñor nañu ndax euh, ñor googu moo waral motivation boobu nga xam ne def nañ ko ak ñoom ñi ñu àndal di liggéey ñu ñu ñu dem ba foofu. li ma ciy leeralaat nag mooy li nga xam ne fédération bi moo ko def muy regroupement boulanger yu Touba jotewul ak ñi nga xam ne ay boulanger lañ ba pare. jaayantewaat ci biir di yëkkati ay addiya comme ni ko ñëpp di joxe di ko joxe muy jaar ci sëñ baara mii di dugg ci ci liste bi mburu moomu ñu tudd tudd regroupement bi jotewul ak li nga xam ne moom la boulanger yi di jël ci seen poos di ko barkeeloo comme ni ko ñëkk di defee dañoo lim mburu mi waaye am na addiya yu ñuy joxe yoo xam ni ñoom bëgguñu sax ñu lim ko waaye man maay gën a soññee ci loolu ñu jàpp ne ci mburu mi rek la ñu war a yem dañoo war a joxe mburu ak liy ànd li tax mburu ñu mën koo jariñoo kon bu fekkee euh, damay daaneel maa ngi leen di wax ne jataay bii li muy rafet nga xam ne mooy mooy mooy mooy ndogu li nga xam ne def nañ ko bu fekkee ña ko doon sos bu ma juumul dañ cee jublu woon gan gi nga xam ne ñëw na Touba dogu jot te amul fu mu dogoo jublu ci tumuraanke nga xam ne ndogu manqué na ko waaye yaakaar naa ñi fiy dogoo du ñooñu ñi ëpp ci ñi fiy ndogoo ay kilifa la ñoo xam ne bànneexu jumaa ji moo tax ñu bàyyi seen i kër di fi ñëw kon loolu couleur na yoonu murit wépp waaye couleur na dëkk bi waaye couleur na lislaam yéen ñi ko taxawal nag ba ba ku ko gis xemmeem ko ñu ngi leen di ñaanal ci barke Sëñ Touba ñu yàgg ko ànd ak yéen wasalaamaaleykum wa rahmatullah rahmatullah ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di sant bu baax ci jataay bi ak boole gi ñu ci boole ndax fii moom yaakaar naa ne kuñ fi tudd yaa war a sant bu baax a baax ndax kuñ ci boole rek dimbali nañ la mu mel ne xam naa ne sëñ mu safaa mi daa baax waaye famiyam rek doyoon na ciy kàddu ndax li ñuy tudd di tudd regroupement boulanger yi nekk Touba. lu fi waaye dégg lu mu mën a doon rek ñoom ñi lañ ko nàmpate ndax dañoo dikk fekk ñoom ñu liggéey liggéey bi euh, biñ dikkee ñu ne ñu teg leen fii seen tànk ñu teg fa jéem kon fu mu egg tey ñoom ñii ñoom yaakaar naa bu ñu waxee rek doy na sëkk kon mu mel ne euh, ñun su fu ñuy waxee rek mooy fii nga xam ne fi la kilifa yi jiitu wax nii sëñ Tuubaa amul tànk gannaaw tànk kanam rek la am loolu euh, saa su ne day feeñ ndax ku ne xam ne jamono xat na xel yi tamit ñu ci bëri jàpp nañ ne euh, dañoo war a soppi seen i doxin wala dañ ko war a wàññi kon bu ñu toogee ci jotaay boo xam ne ak dolli dong lañ fay wax loolu firndeel na Sëñ Tuubaa moom mi ngi ci bi te nangul nañu ko ah di ñaan rek euh, comme ni ñu ko waxee dolli googu képp koo xam ne yaa ngi fi nga yóbbaale ko te doxe ko ba nga xam ne nii euh, bu ñu defaatee jàngat dinañ xam ne dolli googu am na bu wér a wér fi ñuy dikkaatee rek mooy fa ñu li ñu jël ba noonu wax. ndax sunu kilifa yu tedd yi ñoom yaakaar naa li ñu wax lu mel ne sëñ Moustapha mi ak baara Baarame ak sëñ Baye Mour Diop mais ba ci sëñ Baye Linguèye ñoom suñu waxee ci turu boulanger yi rek mat na sëkk kon ñu ngi jox joxana jox sañ Sidi mu tëj ko rek te waaw kon daal mel na ne xam naa ne <laughs> ñu jéglu bu baax. Euh, mbooloo mi daje fii ci jumaay sëñ Touba ji ñëpp ñu ngi leen di nuyu ak ñi nga xam ni war nañu ko seetaan bitim réew ak biir réew mi leen sant di leen gërëm di leen xaman ni. lii sëñ bi jiite boulangerie fi mu fi mu daanee foofu lay tàmbalee ndax nun <clears throat> ñëpp war nañoo ànd gërëm daayiratu Muxaddamatul ma ndax man de wax dëgg yàlla du euh, ca bees bees ba jàpp ma ni mën naa at ma dong mën nañ ko organiser la mu doon tuut tuut loola jàpp ma ko woon waaye ginnaaw bi dem naa ba gis li ñu liggéey mu yéem ñëpp te it ku ku xam dajale mbooloo organiser leen ak defaral leen lu loo xam ñëpp dañ dañ ca mën a gis seen bopp loolu du lu yomb dafa mel ni sëñ tubaa da cee jàpp daal liggéey daal dafa mel ni sëñ tubaa da ko téyel boppam ndax yombul yombul ndax nun day njàkk su ndaw seenu am ci gaar bu ndaw rek léegi-léegi lijjanti ko dañuy jafe te njàkk su as njàkk la su tuut te te te te lijjanti ko rek ba mu tegu ci yoon dan dan dañuy jafe kon defe naa lu toll nii moom sëñ bee ci jàppal boppam kon nag moom weesuwul daal man daal sama wax weesuwul daayiratu Muxaddamatul ma ñu sant leen gërëm leen te itam di di di leen ñaanal itam te di leen ñaanit ngeen ñaanal te di fasaalanu ci taalibe yëpp ndax defe naa li ngeen def daal euh, taal bi yëpp xaj nañ ci loolu rek mooy li ma doon wax wa salaam. auzu billaahi mina shaytaani ñoo ngi nuyu mbooloo mi ñëpp ah, samay kàddu nag du ci bari ndax lima ma war wax lépp ñi ma jiitu wax nañ ko ab soññe la rek waaw waaw samay kàddu xëy na du gudd ndax ñi ma jiitu li ma li war na wax lépp wax nañ ko ah euh, li ci des na ab soññeele lay lay doon ku ne xam na jamono ji fi mu toll waaye teewul kenn ku ne nang daa defe ñu ngi lay ñaan nga fas yéene defe noona boo mënta defe noo ko rawit ndax xam ni lii nga xam ne bañ ko tàmbalee léegi mën a fukki ak juróom yàlla dogal ren ji jamono ji am ay jafe-jafe ci wàllu gu ne xam nañ ko waaye nag kuy jëfal sëriñ Touba waroo yokkat da ngaa war a gën a takku loolu tam lañ leen di ñaan di ko ñaan ñi fii ci dëkk bi ak ñi nekkul ci dëkk bi tana ne ci biir réew mi fu ñu fi mën a nekk ak ña nekk ci ca bitim réew loolu daal fas nañ ko yéene ah di itam gërëm waa daayiratul muxadamatul xidma ci seen taxawaay seen taxawaay it bokk na ci document bii ñu ma jox de leeral gu leer nañ ñi moo ci ne képp ku ci am lu lënt boo jokkoo ko mel ni man wala Cheikh Bara Diop wala Moussa Faka Diaga dana la ko leeral ba mu leer nañ te ragal naa ne ku xam li ci biir document bi danga nga gën a takkuwaat ndax kat ñu bari dañoo jàppoon ni li ñuy def lii ci koor gi rek la yàlla dogal na sax ba bañ koy nësër koor gi lañ yéene woon waaye nag mel na ni boo xoolee li li ne fii koor gi dugg na ci ba génn bu dugal yi weer yëpp ba koor del si waat ndax loo nga xamante ne bii ni ci jumaa ji ñu bari boo waxee ci ci la ñuy wax dem na ba ca morgue ba dem ba ci ci yeneen di jàkk dem ba ci yu bari yoo xamante ne bii ni bu dee yu war a jënd ci biir jumaa ji ci lañ koy def ak yeneen ak yeneen yeneen yu bari bari yoo xam Euh, ne neexul wax nii ndax dafa dafa dafa bari ñu leen ñu leen di sant ci taxawaay bi di sant mboola mépp tey gën a soññi xam leen ni lañ daa def tey lañ ko gën a fas yéenee def loo ko raw ndax bañ jógee 2005 ba fine at mu ñëw mu ne dafa man at ma weesu loolu nag ñuy ñaan atum ren mi itam nam doon demee mu demee ni ba man at yi weesu ñu ngi sant ñépp di gërëm ñépp di ñaan sunu borom bi tabaaraka wa taala lii fi nekk ci àdduna bi ba nekk eh, lu jaxase àdduna bi yépp yàlla na ko fi sunu borom bi jële ke darajay seexlu xadim ki jërë ngeen jëf doon lee ñaax rek ñépp rek ne lu lu ci waay man nanga ko def ndax def lu baax foo ko defee baax waxtu woo ko defee baax koo ko def baax na waaye nag dañu wax ni weeru koor moo ëpp ab yoon lépp beneen bi ci topp eh, dama dégg ci mag ñi ñu wax ne sëñ Tuubaa moo daan wax ni eh, def def yëpp joxe yëpp joxe ñam moo ko ci gënal kon defe naa ne lii joxew ñam la te itam euh, màkkatal mu karama boo demee euh, jamonoy koor dangay gis naar yi kenn ku nekk togg sa kër ay bernde taxaw ci mbedd mi fépp fu nit ñi di jaar koo gis rekk ngir yàlla sarax ma ngir yàlla ñëw dogoog man sarax ma ngir yàlla ñëw dogoog man kon defe naa ni lii lu am solo la yàlla nañu ci yàlla gën a xiir te yàlla nañu ci yàlla dole dimbali yàlla nañu ci yàlla dole jàppale jàppale te yàlla nangul na ko ak yonent bi ak sëñ Tuubaa jërë jëf